yow Lamin jëlal sa pilim jéema yi ma di lim sa njariñ yaa keneen koo njariñam auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rawatina yéen ñi nekk di diaspora bi ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk di leen wàcce seen wàcce waay bu ngeen gisee jotaay bi nag xam ne diine woote na waaye lislaam xewleeti na lan moo xew ki nga xamante ne mooy xalifatul am bi tarixatul xaadiriya di Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay mu Cheikh bu Mahamad Kunta moo jox ndigal porte parole bi Serigne Pape Abdourahmane Kunta bi nga xamante ne mooy doomi Serigne Mahamad Kunta Kunta mu war a ñëw fii ci Ndakaaru waaye rawatina fii ci arrondissement de Niayes nga xamante ne ñeenti commune moo ko war muy yëmbal nord yëmbal sud ak Kër Massar ak Malika bis bi nag mi ngi doon la 15 décembre alla allahu rabbi lañu Serigne bi war a ñëw ñu ko teral ko tatagal ko mu wax ñu ci maam Seydina Muhammad wax ñu kan mooy yàlla wax ñu kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis baa ngi noonu ñu ngi ci woo mbokk jullit yëpp di ci mbokk taalibe yëpp mi ngi amee nag fi nga xamante ne mooy ci àndallaay fa lay amee ci diggante jumaay Serigne Mansour ak jumaay Ndiaye Kaamil insha allahu rabbi fa nga xamante ne fa ngeen xamee Cheikh Bouy Diankha mu fay wootee guddi Cheikh Abdou Khadir Jeylaani képp ku dégg gi mooy sa su ko defee bu sëriñ bi ñëwee incha allahu bi ci ngoon bi am na waxtaan bu am solo bu fay am waaye ku ko rate nag di nga rate mbir moo xamante ne nii dootoo ko dabooti incha allahu rabbi su ko defee dañuy jox kàddu gi suñu papa mi nga xamante ne mooy Cheikh Moussa Ndiaye bu wax bis bi ñu ngi demee ak sëriñ bi ban waxtu lay ñëw incha allahu rabbi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi.

te it euh, am nu yàlla def ci moom noo xamante ne bii ñëw war a ñëw ci bés boobu ñu fa ñëwee dañ xam moom mooy kan ndax mat na li mu doon te it euh, ñu ngi koy yëgal ñëpp nag di bëgg ñëpp euh, xam programme bi ne nii lay tëddee 12 heures pile incha ci kàttanu yàlla ci li ñu ko bëgg a accueillir bu ko defee nag buñ ko jiite buñ ñu buñ jiitleeg moom dem ba nga xamante ne bii egg nañ kër Cheikh bu jànq ba nga xam ne fa lañ koy dalalee. ñu dalal ko euh, tatagal ko 14 heures pile ñu jublu ci julli gi bu ñu jullee 14 heures maanaam tisbaar ba pare euh, lu ci teg muy 30 minutes ñu def bernde yi maanaam yëfi njóobeen yooyu bu ñu ci paree nag ci kàttalu yàlla 15 euh, heures incha allah ci li ñu war a def ziar muy kilifa bu mag koo xamante ni bii njëriñu kese kese kese la feesee dell ku fa ñëw di nga xam ci li ñuy wax ni lan la. bu ko defee 17h euh, bu ñuy jullee takkusaan ba pare ci li ñuy def mise en place bi euh, invité yëpp bëgg nañ mu ñëpp teew ci waxtu woowu toog euh, tàmbale programme bi bu ñu tàmbalee programme bi nag wax dëgg fa yàlla fin fin programme bi mi ngi nekk 20h30 incha allah ci kàttanu yàlla. ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu tal ak fekkee te yàlla barkeelal lépp loo xamante ne bi moo fay jógee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf macha allah. asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu leen ñuy di leen ziyaare góor ak jigéen mag ak ndaw di ziyaare taalib yëpp fàttewuñu kenn waaw di leen woo nag ci ndaje bii nga xam ne moom la ñu fas yéene le 15 décembre euh, ci kër Cheikh bu Diatta comme fi mu ko doon defee rek niñ ko waxee ñu ngi xaar ñëpp. képp koo xam ne yaa ngi ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu lay woo rawatina jamaa bi waaw di leen wax ngeen teel a ñëw ndax bés boobu bés fees dell ak njariñ te njariñ boobu yéen nañ ko képp koo xam ne mbokk jullit nga bëgg nañ ñëpp teewe foofu waaw daal di taataan ci li nga xam ne moom la suñu sëriñ boobu di ñu indil ak muy loo xam ne daf fees dell ak barke yàlla na yàlla jàppale ñu ci bés boobu xam ñu fekkee ko ñun ñëpp ci mbaax yàlla dara jël si la allahumma salli ala salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk taalibe ngi woote ci kàddu jigéen ñi di woo yëpp jigéen boo xam ne yaa ngi ci tarixa ngi woo suñu mbokku cheikh yëpp bu kenn manqué ci bés boobu incha comme ni ñu ko daan defee ci gàmmu cheikh bëgg nañ koo defee noonu bu kenn manqué na ñëpp ñëw wuyu si ci bés bu màgg boobu ñu ñëw teer gan yi dalal gan yi ci kàttanu yàlla ak daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi woo sama mbokk jigéen ñi yëpp bàyyi ñu kenn Dakar Kees Mbuur Kaolack Tëngéej jamaa bi ñoom ñëpp ñoom la ñu woo ñu ñëw jàmm ak salaam ci kàttanu yàlla wasalaam macha allah mbokk yi su ko defee kon bis baa noonu ci la quinze incha allah rabbi su ko defee dañuy jox ki nga xamante ne moom la fi xale bi bi teg tey jii muy Cheikh Abdoulaye Kounta moo ko fi teg muy Cheikh Bou Diankha nekk représentant xalifa bi fii ci arrondissement de Niayes moom it mu mën a woo mbokki jullit yi ak mbokki yëpp rawatina mbokki pas-pas yi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ah euh, daanaka li nga xam ne moom la njaboot gi woote ñëpp dégg nañ ko. te moo di ñëw ki nga xam ne moo yore kàddu xalifa bi muy porte parole di xalif général di xaar Serigne Abdourahmane Kounta di borom xam-xam bu mag waaye tamit yore liggéey bu rëy boo xam ne xalifa bi moo ko gàll ci kawam mu war a nemmeeku taalibe yi incha allahu le 15 décembre. waaye ñoo ngi ciy woon ak ku mel ni Alhaji Cheikh Mamadou Diop mi nga xam ne mooy président fédération nationale des daayira ahlul kunti yu Euh, di ci woo tamit waa diwaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu Kër Massar ah oustaz Modou Ndoye nag duñ la fàtte yow kat wax dëgg yàlla lépp lu waay di def ci biir ahlul kunti yu war la caa boole ndax da nga caa xejj lool sax xej nga ci ci sa woy jur wa Cheikh Arouna Ndoye waaye xejj nga ci ci sa jëf yow Cheikh oustaz Modou Ndoye macha allah ñu ngi lay woo ci bis ak mbooloo mi nga xam ne moom nga bokkal nekk foofu ci Bargny ñi ciy woo nag honorable député maire Moustapha Mbeng di ci woo honorable député Samba Demba Ndiaye di ci woo monsieur le maire Daouda Ndiaye bi nga xam ne mooy borom bis bi di maire Yeumbeul Nord di ci woo monsieur le maire Talla Gadiaga bi nga xam ne mooy maireu Malika moom dafa bokk ci yëf yi ndax saa boo demee Ndiassane fekk ko fa macha allah di ci woo monsieur le maire Bara Gueye Bara mi nga xam ne mooy maire Yeumbeul sidd moom it ci mbir mi la kon daal bis baa ngoogu bëgguñu kenn wuute ko wuute ko daal wóorul ñu ngi ciy woo ñëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha la wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax borom Ndiassane kat li mu waxoon ay dénkoon ay taalibeem leen la man qaala laa ilaha illa allahu fa kun lahu awnan bil istizaan loolu mooy tarixa Cheikh Abdou laa Jeylaani képp koy wax baatub laa ilaha illa allah na nga nekk ndimbalam na nga nekk wéttalam ci loolu la ñu nekk moo taxit lépp lu ñuy def woo ci bu ko defee ah ñu séentu mboolem kuy jullit daal ñu ngi la fay séntu ci bis bi di fa séntu kuy autorité it monsieur le sous-préfet de Niayes Omar Dia ah bis bi sa bis la de yaa ko moom seqoo ko kenn ndax ñi ñu fi tudd ñëpp tey di maire yi yow yaa leen yilif kon yow yaa fi représenté monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal kon boo teewee mel na ni président teew na mais boo teewee mel na ni gouverneur teew na boo teewee mel na ni ministre de l' intérieur teew na kon ñoo ngi lay woo bis bi muy sa bis allahumma salli ala sayyidina wa sallam wuldu alal ji ñuy ko coppa mu tax nit ñu baax ñi fii juum jaru